mbokk yi ñu ngi leen di siyaarewaat bu baax tey ñu ngi leen indil xilmul falak ku bëgg xam sa biddiw nga xam ne ne da xoolal naar yu trois bi yu xawaa yu maxe yu sawara suuf ngelaw ndox boo ko bëggee xam euh, léegi-léegi ma wax la ko si lu yomb gaaw boo xamee heure bi nga judd woon rek danga xam sa biddiw si la fan lay dox ak yëpp ndax xam lu Euh, biddiw bi lan naan xamlu mooy biddiw yu njëkk ñu koy wax saaru bëy bii di mel ne saaru nag jaw sa sartaan asad la lion xasra misaan boo xoolee euh, daa am luñ koy waxee nag si français waaye ñun si arab lañ koy waxee euh, si arab lañ koy waxee ndax misaan bi mooy baraas aqrab mooy jiit aqrab mooy jiit am na nu ko tubaab di waxe kes ku juddu diggante ndax xoolal fii euh, ni ngay xamee ne nag si lu yomb boo xamee at bi nga juddu danga xam yow sa biddiw lan la xam sa tabixa naar yu turaab yu xawaay yu naar yu turaab yu maay yu biddiwu xam lu mi ngi commencé 21 mars bala 20 avril léegi ku juddu ci diggante bii 21 avril 21 mars bala 20 avril lii mooy sa biddiw muy naar yu muy sawara lii si ngay xame yow sa sarax sa couleur sa biddiw kañ lay fenk ah, ku lay ñaanal waaye ku nekk sawara moom saraxam li ci ëpp mooy wàllu lujum lépp luy dem ci togg dee ko faral di saraxee wala di togg di saraxee baax na ci lool ki nga xam ne naara yu la le 21 mars ba le 20 avril lii mooy sa biddiw te sa tabixa di naar muy safara yow mën nga ànd koo xam ne tabixaam yaag asat mën ngeen a ànd asat mën ngeen a ànd xawsu mën ngeen a ànd xataa ba si misaan mën ngeen a ànd ndax mooy sawara ak ngelaw mën nanoo ànd sawara ak sawara mën nanoo ànd waaw mën na noo ànd bu baax euh, boo xoolee euh, sowru muy trois biw sowru mooy suuf moo tolloog 21 avril bala 20 mai ku ci juddu ku ne sa rawxaan mi ngi tolloog suuf mi ngi nii mooy tolloog suuf la 21 avril mbala 20 mai muy sawru waaw bala 20 mai kooku mooy rawxaanam mooy taxawaale suuf nit kooku foo ko fekk ku dal lay doon nag lañ koy wax nag la biddiwam bi bokkut ak nag nag yi waaw biddiwam bi lañ tuddee nag tabi xam mooy tolloog suuf nga xam ne tekk rek lay def waaw ay du gaaw a yëngu daal eh, saraxam moom it baax na si lépp loo xam ne ni si suuf lay jóge waaw boo xoolee tey eh, yooniyoo bi jaw saa mooy xawaayu mooy ngelaw jaw saa la vingt et un mai ba la vingt et un yooniyoo mooy juin waaw mooy juin léegi boo xoolee ngelaw lépp luy fur wi mooy sarxam ko foo fekk kii nii wàllum tukki daf koy yomb lool waaw wàllum tukki daf koy yomb lool saa bu bëggee tukki day yomb mooy diggante 21 euh, mais bala 21 juin 22 yooniyoo mooy 22 tamus 22 suli juin 22 juin ba vingt de juillet mooy mi ngi nii tunus ku si judd ku ne mooy ndox sa yow da nga doon nit koo xam ne kenn du la gaaw a jàpp waaye del faral di saraxe soow del fa del faral di saraxe lool ndax weer yi ni tegaloo rek noonu nga koy toppee xasat mooy naar yu 21 23 octobre ba le 22 euh, août. ku ko juddu naar yu nga mooy sawara yow bii mooy sa biddiw mooy sawara le 23 octobre bi ngay commencé muy sawara le 22 août jiit escarpent mooy jiit sa tabixa di ndox waaye xasad boo ñëwee ci xasrat may 23 octobre ba le 22 décembre 22 novembre maanaam décembre nga ñëwaat ci misaan muy xawaayu mooy ngelaw ngay dangay ngay ñëw ci 23 septembre bala le 23 octobre boo xoolee tey maayu bi mi ngi taxaw ci vingt octobre ba le 21 novembre képp ku judd 24 octobre ba le 21 novembre sa rawaxaan mi ngi taxawee ndox nga ñëwaat 22 novembre mooy naar yu muy sawara di 22 novembre mooy sawara bala de décembre ku fi juddu kooku sawaraa ngay doon jadit muy suuf 21 décembre bala 20 janvier képp ku si juddu rek sara jaddit lay doon muy suuf xawlu mooy ngelaw vingt vingt janvier ba le dix huit février mu ngi tolloo ngelaw boobu moom da ngeen koy déglu bu baax août mooy ndox dix neuf février ba le vingt mars dix neuf février ba le vingt mars ku fi judd ku ne rek mi ngi ne dallu août. dall mooy mooy ngelaw waaye xóot moo commencé mooy ndox moo commencé 19 février ba le 20 mars képp rek koo xam ne amul kii loola si leer rek duggaatal si YouTube bi ndax moo gën a yomb jële sa turu yaay sa turu baay boobu dafa naqaree jàpp ñi ko mën a jàpp dëgg dëgg dëgg ñu néew la ndax léegi-léegi dangay ngay indi tur yeeg sant mu jàpp yenn saa yi nga indi tur ak turu yaayam du gaaw a jàpp ñu bari léegi dañ siy juum moo tax bii moom moo gën a yomb te moo gën a wér waaw moo gën a wér ndax ndax kenn ku nekk am na melo tey boo xamoon bis bi mu judd boo yëkkatee loxoom danga xam xaalis dana ko yomb wala ay mbiram dana dëgër walla walla lu mu war a def si loxo bi rek danga ko xam سنورهم آياتنا في الآخرة وفي أنفسكم حتى يتبين أن لهم الحق loolu la suñ borom wax boo leen xoolee loolu si boo leen xoolee si loxo bi nii nii rek danga ko xam ku baax la wala ku jub wala fenkat la walla térian la walla wala dafa war a liggéey commerce mooy jaay wala dafa war a jàng wala dafa war a tukki loolu lépp mën nga ko xam si loxo bi bu la waxee bis bi mu juddu rek laa la wax nag waaw kon nag ñi ngi taxawaat foofu xam naa ne deuxième vidéo bi dana leen indil biddiw bi nan lay doxee si suur bi waaw ak ki nga xam ne ne fan la mar a ànneeg soxnaam yooyu yëpp danañ si ñëw